islamique Jamra ONG islamique Jamra ñu ñëw tey pour waxtaan ak moom si euh, actualité comme ni ngeen ko xamee jamono ji euh, mu wàllum dégradation des mœurs ñu bàyyi ko mu nuyoo rek balaa ñuy dugg si waxtaan bi imaam ñu ngi lay nuyu bu baax waa kay ñu ngi lay fay nuyoo Mouhamadou Bamba Ndiaye di jiital ci nuyoo bi sa mboolem téléspectateur yu dakk eh, di ñaanal ñëpp nag ñi amul xar yàlla na yàlla may xar <laughs> aayid el kabir yalla ñu yalla may ñu dugg ci ak bismillahirrahmanirrahim ñu genn ci ak sante yalla yalla defal ñu ci ay yiw yu bari ndax suñu maam yalla ibrahim euh geste ba mu defon geste de d'obéissance absolue mom lañuy baxantal kon nak liñ ci sentu ci yiw ak tiyaaba ak barke ak yi xasanat yeb yalla ñu ko defal defal ko mbolem julit allahumma amiin alors tay euh suma la doon ma lay ñëk laaj moy ONG Jamra yow nga ne ma ONG islamique Jamra alors tey lan mooy le rôle de ONG Jamra euh, lu bari lu nit ñi réere mbir mhm. xam naa booy def sa montage dinaa la yónnee mhm. couverture journal bi mhm. euh, li ñu réere mbir mooy Jamra juddul rek ne ko ONG ab journal la woon euh, bu ñu tuddee woon Jamra ca kaw après ci suuf en sous-titre la revue mensuelle des dossiers sociaux comme nico ko tur yi dossiers sociaux yi moo ñu itteeloon moo tax weer wu thème par exemple suñu premier thème affaire aussi Sinébar pas de parce que nous bobo fait na drogue bi avons def ay dégâts graves, grave grave université lycée et collège yi gens qui ont di yàqu ñi di alors numéro que moom consacré presque 50 pages interroger ay docteur ñu ngi ci sargal le docteur Omaïs yal na ko yàlla yërëm euh, gindi na xale yu bari ci euh, ay explication scientifique et médicale yu mu joxe ci journal bi <coughs> waaye terewul ci biir journal bi nag dañ daan jox kàddu ay anciens drogués alors ñuy ñuy laaye biir xale yi naka la ñuy sàggane ba dugg ci ndëgg sërëxu drogue ak naka la ñuy defee fayda ak fulla ba génn ci mm. alors deuxième numéro ñu jël affaire taalibe yi Euh, musiba yi leen di dal ci mbedd mi ak ñi nga xam ne dañuy wuyu woone ay sëriñu daara ndek ay say say lañu mm. di sànq doomu jàmbur yi mm. beneen numéro bi nag ñu jël affaire franc-maçonnerie mm. voilà foofu nag la ñu amee suñu premier procès contre la loge maçonnique de Dakar en 1985. 1985 voilà ndax ñoom ñoo ñu tooñ ñoom ñoo demoon fii relève de Wakambet université de Dakar di fa def benn conférence boo xam ne ñun demoon nañ dañ ko kumpa waaye la ñu ragaloon moo am ndax ki woote woon conférence bi ñun dañu xam ay jaar-jaaram bon dëgg la génn na àdduna léegi bàyyi fi ay doom ki njaboot ki jabar te ñoom amuñu benn responsabilité ci li kooku def mm-hmm. moo tax par pudeur morale mën nañoo leb tour bi mais ñëpp xam nañ ko ñi fekkee 1985 ak procès bi ñëpp xam nañ ko yàlla dimbali ñu am ci ndam parce que sëñ Abdoulaye Sy baax moo jóg def xutba bu tàng jër ba léegi ku dugg ci YouTube nga tàppe maam Abdou espace franc-maçon ba baa nga fa daal di ñu jàppale. Mm-hmm. Baye de Seydi Seydi Thiaw Laye. xalifa mm-hmm. général de Layène jàppale ñu. Mm-hmm. sëñ Abdoul Ahad Mbacké xalifa général des Mourides jàppale te moom daf ñu boole woon. ak benn jawriñam bu ñuy wax Serigne Mountakha Mbacké mooy kii toog tey. mu ne foo leen toll ci xeex bi rek. na ngeen ko ko moo tax ba ñu demee Touba sëñ Mountakha jël na oto jox ñu. jël essence jox ñu. jël xaalis jox ñu. alors ba formation yi gisee ni nag jàppale bi ñuy kilifa yi jàppale jéggi na dayoo mm-hmm. jour procès bi ñoom seen bopp ñoo yónni seen avocat benn ab tubaab maître Danon mm-hmm. moo ñëw annoncé président tribunal bi ne mm-hmm. ki porte plainte daal nee na pour des raisons personnelles daal dafa préférer retirer sa plainte voilà mu nekk ndam alors ba ñu demee nag ba yàgg nag activité Jamra yi xajatul ci journal alors ci atum 1989 ci lañ ko soppi def ko ONG siège bi que à avenue Bourguiba euh, le président Abdoulaye euh, Abdou Diouf euh, ministre d'État Abdoulaye Wade ministre de la santé Diop depuis lors, activités même au plan parlementaire parce que y a des pour que nous York qui yi yuuxu ne ñu def nañ ay marché, ay sitting mu ne këcc rek dañu mujje créer ci weti Jamra parti politique parce que assemblée nationale fa la nous nase ak di noccee loi yi Jamra amu fa droit accès ndax ONG lañu alors fas woowu la Latif war ba gagné benn siège yu député ñu ne dagaj assemblée député yëpp jàppale ñu nag euh, la ñu doon xeex fukki at ak juróom Latif juróom benn rek la def assemblée et daal convaincre collègue député yi mu di la loi 2007 du 30 novembre 2007 qui criminaliser le délit de trafic de drogue Légui minimum 10 ans a assorti d'une amende qui fait le triple de la valeur de la drogue saisie Mais pour ci réseaux sociaux c'est un projet de loi du projet de loi gouvernemental proposition de loi euh, euh, député ou Jamra bu ñëw Abdou Gueye alors neewuñu nak loi bi dafa le trafic bi à 100% pour cent lolu. Waye lu muy bon bon ku fi bëgg ñaaw def di ah, ay 3 mois 6 mois la 10 ans la ah na lu bari lu il faut que ci parce que. si hmm. seetloo jamono ji yeb ñu ngi wax ne que ne dañ parce que da ngay gis ben trafiquant bu ndaw ko ay si trafic alors que amna ño ni def comme par exemple euh, phobie ak yooyu.

ci Diourbel fekk ci moom do ak alkaati yi ci li ñu wax ne dañu fekk ci moom sinébar yamba coow li jëpp ñi naan quantité bi ñu fekk ci moom kii day ñu ngi koy yóbbu cour d'assises dinañ ko àtte àttu trafiquant ah ma ne wax jóg na donte le d'accord ma ci li mu liñ ko tuumaal ah. parce que ñun dañuy xeex consommateur bi di xeex trafiquant bi waaye d'accord ñu ko ñu jàpp comme consommateur yóbbu la ci juridiction criminelle fa ñuy àtte trafiquant yi du yoon def naa ci ay plateau télé yu bari ba yàlla def sutura suñu communication jàll na ñu mujjee ko yóbbu tribunalu Diourbel euh, flagrant délit atte ko daanaka tëddul weer ñu bàyyi ko voilà léegi nag ñu ngi ci ay waxtaan ak moom parce que man bu ma sañoon mu bàyyi loolu complètement kon nag may leeral ne la loi 2007 31 mm-hmm. du 30 novembre 2007 dañuy koy wax loi Latif Guèye mm-hmm. consommateur yi taxu ko jóg ndax ñooñu ay victimes de narcotrafiquants yi lañ Latif li mu wax lu leer la ci exposé des motifs bi te man am naa sens bokk ci ñi ko rédigé ndax fanaan nañu keroog ba 4 heures du matin muy doog a pare li wax dafa ne cette loi concerne ceux qui sont responsables de la culture du conditionnement de l'emballage du transport et de la vente de la drogue ñoo tax loi bi jóg moo tax ñu criminaliser ko waaye nag ñi koy appliquer léegi ñu juutal ko ñëw fekk benn benn jeune rien di tu taxaw ci benn bopp koñ di mukki yàmbaa rek ñu ngàdd ko yóbbu ko fëgg ko juróom-ñaari at du dëgg du yoon parce que yi c'est des victimes la preuve c'est des narcodépendants bu ñu ko jëlul sax du ñu ak seen sago ñi leen ki leen teg loolu c'est le gros trafiquant ba nga xam ne nga kenn du ba muy jël poson boobu di posone jeunesse bi koku la loi bi tax a ndax consommateurs c'est des narcodépendants et en tant que tel c'est des malades Malades, nak place du rëbës moo tax nañ di wax président Macky Sall nañu bàyyi rëbës bii ñuy encombré ak ay tuxkati yamba. du seen place seen place mooy li fi Ablaye Wade tabaxoon te Macky Sall e-, eggali ko mu le CEPIA le centre de prise en charge intégrée des addictions bi nekk hôpital fan. foofu la ñu war a jàpp yóbbu leen désintoxiquer leen génn tooke bi ne seen ba bu ñu jëlul yàmba du ñu ànd ak seen sago dindi tooke bi ba ñu équilibre ñu bàyyi la ñu ci société bi amal ñari askan wi te ñuy réserver ko ñi Moustapha Cissé di wax ni c'est des multimilliardaires té ñu xam leen di fi duggal drogue bi di fi ami seen milliards di kan solo xalé yi di yok insécurité bi di tassé yi ba paré di déstabiliser notre économie en y recyclant leur argent sale lolo tax lolo tax loi bi jóg waye ku jog nak naan loi bi moo

ONG bi 32 ans la mais 83 ngeen commencé. Mhm. alors ñu li ma la bëgg laaj tamit mooy jamono jii bu ñu waxee ONG Jamra dafa am fu xel di dem mooy wàllum borom ñaari tur yi. Mhm. mu nekk combat boo xam ne est-ce que jamono jooju combat boobu noonu yéen ci doon mënee moment boobu wala jamono jii la combat bi ngeen la affaire bi commencé. xam nga Jamra tàmbali woon naa la ko junj léegi suñuy. suñu plateforme d'activité dafa yaatu. Mm-hmm. nga wax na la affaireu talibé yi wax naa la affaire euh, tokkati yàlla yi euh, nga xamné Jamra ngi dawal yermane di len jappalé ndax ñu mën ci génn. Mm-hmm. wax na la tamit euh, ñu yalla di ba assemblée nationale dugal ñu fa loi bu yok daani ci traitement waay yamul ci loola ñu ngi xex yi ñi jaay ci buntu école yi mm-hmm. amna at bo fi déggone xétu jus d'orange bobu Euh, xalé yi di ko en réalité dañ ci rax mm. alcool ñu diko wax Jakarta euh, ñu def ci liguey bu yaatu mm. def ay émission voilà yàq lu bëri sax ba président Macky Sall jox ndigal mm. daal di jox deug ben arrêté ministériel en date du 18 euh, septembre 2015 ba ayé nañ fi Jakarta waye à part lolu yaa ngi ñuy dégg ci ay médiation sociale gisoon nga fi jamono Sotrac Mm-hmm. bi ko gouvernement bi tassé bàyyi leen ñuy taxawaalu mm-hmm. parce que ñom dañu mettre la charrue avant les bœufs normalement bala nga tass société da ngay defar plan social mm-hmm. sécuriser liggéey koy tass ba noppi après on verra donc ba son alors mu jegi nag euh, Latif wa sot rek bindu ko lettre sakku ci mom mu dox tanku jam digganteem sen diggante ak état euh, jàmm nak lëkkaloo ak d'autres personnes de bonne volonté maa di saluer au passage bokk na ci la sociologue Fatou Sow Sarr Alintin na ci Alioune Tine jàppoon na ci dem si si Iba Der Thiam japon na ci ba neuf milliards d'arriérés de salaire yi leen état bi ameloon lu muy bon bon foqati nañ cinq milliards jox leen bi Latif génne àdduna tamit médiation bi continuer ndax ama Sénégal biñ ko tasee société de nettoiement Yom tam ñu topp ci seen arriéré de salari di de ne nyu nañu febar feebar ame amee se nyi yuri di yom ñu ñëw nyu sakusi Jamra

Yalla dimbali nañu ba ñu ñëwé gis ñu ma saisir le président Macky Sall mu boole avec le premier ministre Mohamed Boun Abdallah a kooku boole avec ak Amadou Ba Amadou Ba boole Antoine Diom, moy l'actuel ministre de l'Intérieur qui était à l'époque agent judiciaire de l'État, je ba fi may wax ak euh ama Sénégal encaissé na sur 3 milliards yi leen état bi amel 4 490 millions voilà il y a une médiation yi moy yi am rek katou Sénégal bi compteur Woyofal yi euh indi na jeexi jaaxa ndax dañu né dootu ñu soxla kuy relever index dootu ñu soxla kuy ñëw di couper ndax ku né yaay gérer ce compteur ni ngay gérer ce ce téléphone. Ah, alors donc euh, ñu daal di ci dakk 700. waaye dañ ko dañu gawantu won parce que dañu défé non compteur yi dinañ dem jiiroo ko. te du taxu koo gaaw noonu. Mm. alors motax nak nag négocier nañu ak euh, l'ancien DG.

Makhtar Cissé daal di réintégré waat 493 bi mu jógee Sénélec daal di jox la ngay ma Mademba bi tey euh, Jamra continuer mm-hmm. toujours ci kaw liggéeykat yi sàkku ko ci ñun ndax ko sàkkul ci ñun ñun du duñu bouger le plus petit doigt mm-hmm. Jamra daal di lëkkaloo avec d'autres facilitateurs ñu mel ni euh, Habib Aydara mm-hmm. bu euh, Sutelec ñu mel ni madame Innocence Tap Tap Ndiaye loolu tam daal di juraat quinze post bu fekki see 493 yi muy ligay kat yu retrouver sen salaire ak sen dignité ginaaw biñu togué 35 mois sans salaire voilà yooyu mo ëpp solo ci li Jamra di def. yoo xam ne nii population bi waaye waaye nag malheureusement bo né rangou rek ñu ne ah, def ko ci journaux yi ñetti fan juróomi fan ñu di commandé. waali juróomi fan té yooyu mo gëna ah, touti 1 un dixième de